bay Abdalaay mooy baayu nabi sallallahu alayhi wa sallam yaay Aminata mooy yaayu nabi Muhammadul Alimatu Saxidiya nampal nabi kooku jirim la woon yaa rasulallah waaye def leen ni ñu màggal rasulullah def leen ni ñu màggal rasulullah muhammadul ku def ni le yàlla na nga fekke ay déwén loxoy ca kaw ñu màggal rasulullah ba nabi juddoo kul la ñàkk baay ba nabi juddoo yaay ja toog di jooy muhammadu la te naani billaahi li yëkka metti waay abdallahi di sunu yaa rasuulallah ma ne ci ñaari weer ngërëm la ñàkk baay sallallahu alayhi ci ñeenti atam la ñàkk yaay billahi liya dal rasulullah man babay jafato yayam ta xam sallallahu ba ki mu dem ba abwa amina faatu billahi Amina mu toog bësul ko dem Nabila te yaayam Rasulallah ne bis ummu ay man moo ko boor yóbbu ko ci maamam ja Saybata yàggul ak maamam ja mu faatu billaay li dal Rasulallah mane ba maam jafaato bayam bu ndaw sallallahu nan abi moo ko def nañu ay at mu doora faato billahi ne nabi lañ ne woon soo bëggee ñu gëm la weer wi tànga koy xar weer mu def ko noon li dal jabar la bëggu yaa rasulallah ma ne banaa bi tooge xelam ni waa maa ngi dem seeti kër nijaay Muhammadu booba kër nijaay waa Taayif ñoom ñoo fi gën a bañ Rasulallah mën nañu boole dof yaak yonent bi ñu boole xale yaak yonent bi mën nañu boole xaj yaak yonent bi قد يخير دفيا جمع رسول الله من بسباب زيد بن حارسة زيد ليون بأندلون محمد من ممود نينا وساعة مو وسال دم رسول waaw waaw keroog la buur yàlla yónni woon jibril mu ñëw naan ko yàlla ne soo bëggee man ma sànni yu mag yi rasulallah ani yónneen ba naan naa xalaat ne leen na leen jéggal dañoo xamul Muhammad ma ne kenn ci ñoom ngeen mu leen di rey ngir Rasulallah ma ne Mame Maodo ne لنا لولا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لخطر محمد بالأخشبين سنگ بچا مدينة دلنا بال يا رسول الله man def leen man nii seeni loxo yi ca kaw suñu loxo yi ca kaw ana soppe yonent bi seeni loxo ca kaw sallallahu alayhi wa sallam suñu loxo yi ca ñu àndandoo seeti sëñ mbay si mën mu sóor mu wax ñu koy am lu leenu ko may sallallahu alayhi wa sallam waa kër rasool li ñu am lu leenu ko may sallallahu alayhi wa sallam fondation kër rasool li ñu am lu leen ko may sallallahu alayhi wa sallam gën te gëm yàlla ak yoneen Muhammadu teral ñaari way jur jital njaboot kon maam Maodo xarito man moom lay way ba dee maam Maodo xarito man moom lay way ba dee maam Maodo xare borom ci waawan la xooyee maam téeméer suba ka ngoon astafirullah téeméer suba ka ngoon la ilaha illallah muhammad salatul fatiha insha allah léegi nga jóg koog rasulallah yonenti yàlla Ibrahima yàlla ko ne woon bàyyi rendil sa doom tax ñu rendi xar ma jote ko Ismail ko koy Rasulullah ah, bu xar ma ñëwut woon ñu rendi ma yow mi bu xar ma ñëwut woon ñu rendi la ma ne képp ku fi doon ah. góor te parce que wuñu la war nga ko gërëme rasulullah dama ne woon kenn bañul nabi sallallahu yoo am na ñu nabi muhammadul bañu nabi dañoo xamul nabi ñoom ñooñu xamuñu ko ya rasulallah si buuram dama pëyis déedéet al am sama xol bi mooy walis déedéet al am damay waaj a gën te gis man mi ku nay wana leen rasulallah seen loxo yi yéen a may wana leen rasulallah talibe Cheikh Jawharatul Kamal leen rasulallah seen loxo yi yéen a may wanale rasulallah jawharatul kamala may wanale rasulallah talibe cheikh jawharatul kamala may wanale rasulallah fondation kër rasul may wanale fondation waa kër rasul yi yéen a may wanale rasulallah balal ma taalibe Cheikh Funto ku ñaari pey jawharatul kamal Cheikh ma Tijaan teew Cheikh na Tijaan teew man Sëriñ ah, na Tijaan teew teew ana soppey Babakar Cheikh maam Mawdo Cheikh na Tijaan teew Abdul Aziz Si maam Dabakh dafay teew ànd ak Babacar moom am ñu ànd ak Rasulullah waaw هادي نبينا خلفاء وصحبه كل يوم كل يوم كل يوم يوم يوم يوم يوم خلوفا آشر تجان من دم سبورم دم بيت ديدت أم أم سما خل بمي وليس ديدت أم أم دم يواجه جنت جس نيني كني ونالك rasulullah sallallahu alayhi wa sallam